sëñ Fallu alimun wariwun afisun ñun daana filaal weeru gona sëñ Fallu sëñ ñun daana filaal xal baram le alimun wariwun salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu bàyyi xel ñu ngi fii tey ci màggalu kastu Rajab rajab di bis bi nga xamante ni moom nañuy màggal gane àdduna Cheikh Mouhamadou Fadar Mbacké di ñaareelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Mouhamadou Fadar nag mooy doom ci Cheikh euh, Serigne Touba ak soxna maam Awa Bousso Mbacké mi ngi gane àdduna le 27 juin 1888 ci Daaru Salaam Serigne Fallou Mbacké jaar-jaaram ginnaaw bi mu jëlee xilaafa gi ci magam ju tedd jeeju Cheikh Modou Moustapha Mbacké en 1945 Serigne Fallou Mbacké bokk na ci li mu fi def symbole bi nga xamante ni mooy yoon symbole yoonu murit bi gën a mag di jumaa yi Touba Serigne Fallou moo ko yeggale Serigne Fallou moo tijji jumaa ji en 1953 Serigne Fallou Mbacké moo fi def marché Ocass Serigne Fallou mooy andi courant bi andi ndox mi leeral yoon yi kon jaaraama Cheikh Mouhamadou Fadar Mbacké. Serigne Fallou alimun wariwun afisun yaa ñun daana filaal weeru kër Serigne Fallou doon ay maître yu néew ñu jot tasewaat fi ak ay mbokku taalibe suñu yaay ñu laaj ko fan la jóge jógee man maa ngi jóge Dakar Pikine fa laa jógee. kontaan rek. ndax ñun sëñ Fallou mooy sunu sëriñ soxna ndeyjoo Jaw mu sëñ Fallou mooy sama waajur kon xam nga ni ñun ñooy waa sëñ Fallou. waaw ñoo ko bokk gisandoo tey soxna si tamit mu ngi jógee ba dakaar ñëw fii ci màggal gi moom tamit di wane mbégteem bu baax a baax a baax a baax papa ñoo ngi lay nuyu. fay naa la. papa kon boori ngin ngi new. kër mbay kër mbay lay. taxu maa sonn lool de. waaye nag lu ma ci sonn rek dinaa ci am lu ko ëpp waaw. ban yëg bis bi kay li ma ci gis lépp mënuma koo wax ndax tubaarkàlla lu ñu ci foog rek lu ci lu ko raw mi ngi ci. loo ci gis rek am na lu ko ëpp waaw. mbokk yi ñoo ko déggandoo suñu papa ji nga xamante ni mi ngi jógee ba ngeen ngi neew donte ni mag la lool ci ay at waaye nee na cépp coono boo xamante ni daj na ko rek Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké jaral na ko tey kon fàtte lépp fàtte na lépp luy coonaam nee na kontaan na lool jërëjëf Serigne Fallou nañ fi suñu benn yaay boo xamante ni ñëw na màggal si ñu fas yéene nuyoo ak moom laaj ko fan la jógee ak tamit yan yëg-yëg la am bi mu ñëwee salaamaaleykum maaleykum salaam waaw ba tey nag ak sant rek ndax Touba moom boo fi ñëwee lépp rek ak cant rek la ndax neex na ba pare ndax borom jumaa ji moom lii mu am tey jii jar na ko ndax moo ko liggéey tey ba lii yëpp ñu am ko di sant Serigne Touba sant Serigne Fallou ndax man Serigne Fallou sama Serigne te dama bëgg Serigne Fallou. waaye Yeti TV di leen ñaana tele bi jëm ca kanamat ca kanam mu nekk télé ay télé tele mais kontaan nañ nag wax dëgg yàlla nag di leen sant di leen gërëm màggal gi neex na te xumb na it wax dëgg yàlla. soxna si maa ngi lay fay soxna si. man Absa Mbaye laa tudd. man Touba la dekk way xeet seigne Fallou rek tax ma baye lepp ñew ci jumaa ji sak chaque contente ma sante yalla sante yonent bi sante seigne Fallou mbacke man sama lepp seigne Fallou la man luma am seigne Fallou la seigne Fallou sama lepp di ñaan magel gi yalla nañ ko teewaat lu fi way ñaan yalla nako seigne sëriñ Fallou nangu xéewal yu bari yéen yalla defal leen jàmm ci barke seigne Fallou mbacke ci barke seigne Fallou jere ngeen jëf waaw ba tey ñu ngi ci reportage bi nga xamante ne moom lañ leen di amal ci Kazu Rajab bi ñu ngi fii ci buntu kër Serigne Fallou ci ngi gis gi gis nañ fi euh, ni taalibe yi ñu ngi fi ñëw bu baax a baax di nga xam ne di fi fas seen soxla ñu fas yéene ci am ak ñoom euh, ay laaj rek laaj lan moo waral ñu fiy ñëw. waaw man bëgg Fallou. bëgg waaw bëgg Fallou fii ci buntu kër Serigne Fallou. sama taxawaay ci buntu kër Serigne Fallou santaat Serigne Fallou. waaw ba ñu mayee tal ak fekkee ñu ñëw ci bësëm bu màgg bi muy kasura Rajab waaw teewe ko fii di ñaan waaw sëñ Fallou yokk leer yi may ñu wér gudd fan ak war gi yaram maa ngi sama soxna ñu ànd man Dakar laa jógee Parcelles Assainies waaw sonn ma sonn sëñ Fallou jar na ko démb laa ñëw dama jaayante yoon bi ñëw mu metti loolu waaye sëñ Fallou jar na lu ne waaw yëg-yëg bi ma yëg tax na ma fàtte bépp coono yëguma lenn sama yaram lu dul santaat sëñ Fallou jërëjëf amin waaye jërëjëf waaw ñoo ko bokk gisandoo ba tey euh, ñu amaat fi benn mbokk taalibe boo xam ne moom mi ngi wuyoo ci bëgg fàllu moom tur bi moom yaakaar naa ne wuyu na bu baax bis bi muy xam ne tamit ni am na coono bi mu ñëw waaye bi mu agsee fii mbégte gi mu yëg rek tax na mu fàtte bépp coono boo xamante ni amoon na ko fii yaa ñu ngi lay nuyu fay maa ngi tudd Soxna Amar soxna maa ngi jóge Kébémer ñëw gàmmu si déedéet sonn ma moom lépp sëriñ Fallou defar na ko xanaa rek xam ne mbirum sëñ Fallou moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ndax gigis gi ñu waxoon tey guddik tey na ñëpp ñëw ñaan si fi biñ fi ñëwee tey kenn ku ne xam na ne sëñ Fallou rek mooy sëñ Fallou kenn ku ne gis na fi lu ko wees njort ñuy ñaan rek teewe ko nagan déwén te sëñ Fallou sa faj aajo yëpp saafara mbooleem jàngoro yi barka sañ Fallou te boole ñu. amiin euh, soxna si kon lii di wane rek ni ba tey ñun ñu fi taxaw ñëpp wala mbooloo mu fi teew ñëpp ku ci nekk rek yaakaar moo la fi andi yàlla bu yàlla tas yaakaar. kon lii moo nekkoon seen temps bi nga xamante ni moom lañ leen amaloon Yeti TV amal leen ko tey ci màggalu Kazu Rajab gi ba jëlal leen euh, teewaayu euh, taalibe yi ak nan nañ dundee màggal gi li ci ëpp nat ci li ñu gis mooy que ni xam nañ ni sonn nañ naam ci yoon bi bi ñu ñëw waaye bi ñu accès fàtte nañ bépp coone ndax Serigne Fallou jar na ko kon jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadar. bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg Magal. siw màggal jàppale ni njaay Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim njaay bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu amé amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu ci temps am taalibe gaaw efficace contactel Xaadim Njaay da ngay am la nga bëgg ci liggéey bu set wecc